mbokk yi tey dañ fi daje woon ànd ak délégation boo xam ne mu ngi jóge Belgique mi nga xam ni rakku buur bi ñu koy wax euh, Astrid moo fi ñëwoon tey ànd ak euh, téeméer ak juróom benn ak juróom-ñaar fukk ak ñett ci ay entreprise yu jóge sa ci biir ak euh, mu nekk ñeen ñeen fukk ñeenti téeméer ay nit yoo xam ne jóge nañ Belgique ànd ci biir délégation boobu nag mu am ay doomu Sénégal yoo xam ne dañoo nekk Belgique créé fa seeni i kuréel créé fa seeni i entreprise ànd ak tubaab yi ñëw fii ngir waxtaanee wàllu koom-koom ci réew mi ñu fexe ba xam ni koom-koom bi nga xam ni doomi bitim réewu Sénégal ñu ngi koy dugal ci réew mi nan la ñuy fexe ba koom-koom boobu mën a am njëriñ mën ñu mën ko euh, jëfandikoo jëfandikoo bi gën a am njëriñ ci biir loolu ñu doon xool ñi nga xam ni ñu nga ca bitim réew créé fa seen i entreprise nan la mën a jokkale ak. kuréel yi nga xam ne nekk ci réew ngir ñu mën leen jàppale ngir ñu mën a gën a bokk ci lii tabax suñu réew loolu bokkoon na tey ci daje bi ñu daje woon tey ñu seet nan lay lënkale euh, kuréel yi nekk Belgique ak kuréel yi nekk Sénégal ngir ñu mën a jàppale diaspora bi ci biir loolu dem nañ ba gis ni que ni war nañu mën a xool ba nga xam ni denc bi nga xam ne ñun doomi réew diaspora bi ñu ngi koy denc wala ñu ngi koy dugal ci réew nan lañ mën a fexe ba xaalis ba ba koppar yooyu ñu mën ko lijjanti mën ko dugal ci ci suñu économie nee nañ diaspora bi ci li ñu xam dinañ dugal junni milliards ak ñaari téeméer ci ay milliards ñu ne ci biir loolu rien lu toll ni Belgique nga xam ne matuñu vingt mille dinañ dugal ci maanaam ci koom-koomu Sénégal daanaka Euh, ñaari téeméeri milliards léegi nag nan la ñuy fexee ba koom-koom boobu ñun ñëpp nan la àndee ñun ñëpp dajale ko ci am luñ ci jël ngir mën a bokk ci ëllëg ci co euh, projet yi nga xam ne état wu Sénégal dina koy tëral lu mel ni TER bi wala ëllëg bu ñu soxlaatee au lieu ñu dem di laaj ñeneen ñun ñi nga xam ne ñu ñooy doomu bitim réew yi nan lañ mën a fexe ba jël suñu alal def ko ngir développement wu suñu réew loolu moo nekkoon ndaje bi tey ñu ngi sant. gouvernement wu Sénégal ñu ngi sant ministre Sénégal de l'extérieur ñu ngi sant DER bi nga xam ne ñëwoon na fi ñu ngi sant FAISE bi nga xam ne tey ñëwoon ñoo ngi sant euh, bépp kuréel boo xam ne ma ñëwoon nañ fi tey mais tamit ñu ngi sant belge yi nga xam ni ñoom tamit yaatal nañu seeni réew ba ñu mën fa ànd ak ñoom tollook ñoom ci ñëw pour ñëw taxawal ci taxaw suñu réew ñu ngi leen di sant waaye tamit ñu ngi sant presse bi seen taxawaay ñu ngi sant ñëpp baraka jërëjëf Dame waaw Dame Diouf